ñoo ngi dalal tey euh, sëñ bi euh, Aliou Thiandoum mooy secrétaire général seen syndicat liggéeykatu kër yi ak euh, ñi ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi liggéey ci kër euh, bokk ci CNTS euh, ñu lay dalal di la nuyu d'abord. waaw mm, voilà ñu doon waxtaanee liggéeykatu kër yi tey mu am ay coow yi nga xam ne dañ koy faral di dégg yi leen dal wala yi nga xam ne xëccoo la seen digganteeg nit ñi liggéeyal ñu bëggoon a am un peu benn situation ci travailleuses de maison yi lu ñuy dund lu ngeen di jot comme témoignage. témoignage. bon waaw li ñuy dund métti na trop maa ngi lay remercier. Mm-hmm. maa ngi lay remercier bu baax a baax ci occasion bi nga ma jox. Mm-hmm. pour ma mën a wax ci problème mu bon yi. Mm-hmm. franchement bon yi li ñuy dund métti na trop. métti na trop parce que da xool ba nga sax ñiy dund nit. Ah, da ngay jóg cinq heures du matin. nga wàcc vingt heures. sa doom presque dimanche rek nga koy gis. te da ngay def lu nekk sa kër. di violer dañ di siif dañ di ëmbal dañ leen di rey yooyu yëpp mu ngi am fii am na bon yoo xam ne dañ leen di rey ci kër patron bi mais kenn waxu ci dara. yooyu yëpp euh, da ngeen koy jot comme ay témoignages yi nga xam ne day am ay nit yi ngeen dalal ñu ñëw wax leen seen situation nan la ñuy dundee ca kër yi ñuy liggéey. effectivement parce que bon yooyu toujours ñun dañuy nekk ak ñoom ah, parce que ñun ka lañu lu mu néew néew néew ñun dañuy tase dañuy tase ay weer pour waxtaan. Euh, dañuy wax seen problème dañuy fekk aussi inspection du travail dañuy fekk tribunal di ñu wax seen problème te aussi bon yooyu euh, suñuy mbokk lañu. Hmm. suñuy mbokk lañu comme man man séeréer saafara la jas laa dëkk. Hmm. que boo xoolee jas Euh, moitié moitié moitié jàng yëpp ay bon lañu ñu ngi fii Dakar. Mm-hmm. peut-être jëkkër moo leen di tàqale ak liggéey boobu. Mm-hmm. kon xam nañ ci lu bëree bëri. et ci jëf yi leen di euh, di li leen di dal fa ñuy liggéeyee lan moo ci gën a bëri maanaam pourcentage bi fan la gën a bëree ci viol euh, ci harcèlement wala ci li nga xam ne mooy violenté wala jiñ sàcc. yëpp la kenn mënu leen mais mais dina am quand bi nga xam ne moo gën a bëri bi ngeen di jot. wa bi ci ëpp mooy mooy eh, ni ñu di maltraité hmm. wa ni le di maltraité harcelé leen verbalement eh, di le fay payoor yoo xam ne dafay mel ne ku ñuy sarax hmm. yooyu moo ci gën hmm. mais viol yi viol yi bëri na ci étranger yi ñëw fii jël bon bëri na ci suñu mbokk naar libanais yi bëri na aussi ci ci suñu mbokk sénégalais yi que am na suñu mbokk sénégal euh, sénégalais célibataire yoo xam ne dañuy changer bonne comme ni ñuy changer mm-hmm. te loolu dara waralu lu dul di leen violer di leen violer mm-hmm. franchement. Mm-hmm. ku dégg ba loolu mu ngi am fii Sénégal. diwaan yi bëri na euh, Dakar am na Thiès na yeneen ak yeneen mais tey ban région moo gën a euh, capitaliser pourcentage maltraitance yooyu la. fii la fii la à Dakar. Mm. la Dakar la gën bëri. parce que bon boo xoolee région yi. Mhm. Euh, euh, euh, benn benn nga fay dégg parce que région yi seen salaire vraiment baaxul dara. Mhm. loolu moo tax janq yëpp dañu daw ñëw fii concentré wu à Dakar. Mhm. waaw concentré wu à Dakar da ngay janq fukki janq yoo xam ne dañuy luye benn nekk bokk ko. dinaa la nettali benn anecdote oui parce que am na jànq boo xam ne dafa dëkkoon ci ci seen nekk. ñoom presque dix personnes la ci nekk. dañuy lal à même ci suuf. dëgg la. voilà jànq bi feebar euh, ñoom bu ñu yeewoo ñoom ñëpp dañuy dem liggéey am na ci ñoo xam ne par samedi la ñuy wàcc ndekete yow bon li ñuy wàcc di dem yëpp fekk jànq bi tëdd ci kaw lal bi ndekee faatu na. way faatu na faatu na kenn moo ñëw rek yëngal ko euh, euh, kooku defatul dara ñoom ñu yuuxu faatu na parce que amul moyen dem hôpital ñoom taluñu ko bu ñu wàccee taluñu dara day fekk dee nañu. noonu la deewee ci biir nit loolu am na ak yeneen ak yeneen yoo xam ne kenn mënu ko wax buñ ko waxee sax da nga yaakaar da ngay sos yooyu yëpp man teg naa ci bët am na jànk bo xam ne patron bi daf ko jox euh, bu ma troisième étage mu daan fii immeuble immeuble Kébé. waaw boobu dafa mel ni relaté woon nañ ko ci fait divers yi. wala loolu am na fi. am na fi ci mujjewul fenn. et et justement euh, yéen ci recensement yi ngeen di def ñoom ñooy ñëw vers vous wala yéen ay dem euh, si buñ leen saisir ngeen dem xooli sur place nan la demee. voilà recensement bi nag yombul. Hmm. yombul dara yombul parce que ñu ci gën a bëri informé wuñu mais yàlla may nañu sens am na jànq yu bëri yoo xam ni suñ leen daaxee dañuy ñëw fekk ñu inspection. Hmm, hmm. bu ñu fekkee inspection wax ñu seen problème ñun automatiquement dañ leen di recenser jaay leen carte léegi bu réunion amee dañ leen di contacter ku ñëw rek dañuy jël sa numéro fexee xam sa lépp loo xam ne am na dañ lay woo pour téye leen fa nag dañuy mujjee su euh, profité wu ci feetu premier mai feetu premier mai bu ñëwee dañuy jënd ay tissus ay t-shirt togg añ toog waxtaan ak ñoom même sax ñu ngi def ay cotisation maanaam chaque semaine bu ñu ñëwee tase ku nekk loo am nga joxe minimum mm-hmm. na nekk téeméer léegi yooyu xaalis boobu ñuy dajale dañ leen koy delloowaat mm-hmm. des fois ñu laaj ñu lañ leen leen di organiser conférence ci biir koor gi mm-hmm. yooyu yëpp dafay tax euh, ñu yokk ñu ñu massifier syndicat bi mais yombul parce que syndicat bi amul moyen c'est que normalement syndicat bu war a am moyen liggéeykat yi dañu war a cotiser dañ koy dagg ci sa salaire mais koo xam ne bon sa salaire xamoo kañ nga koy jot des fois dañ lay avance sa salaire bu fekkee trente mille lañ lay fay bu weer bi teewee dañ lay jox quinze mille ah xaaraat nga topp nga topp mais yéen souvent nan ngeen di def ak ñoom euh, bu dee dañoo ñëw joytu leen jox leen i seen i problème ndax da ngeen di concocter euh, dossier jëlal leen avocat yóbbu mbir mi tribunal. non non non jarul avocat parce que man mii wax nii. Hmm. man je suis syndical. le mandataire syndical dafa censé bu fekkee problème boobu am na. Mhm. Euh, ñu bind requête requête ci suñu tur déposé ko au niveau du de l'inspection du travail. Mhm. inspection du travail dafay convoquer les deux parties. bu convoquer les deux parties man dama koy plaidel. damay mhm. plaidel liggéeykat bi demandeel ko lépp xam ne yoon may na ko ko. bu fekkee fay nañ ko au niveau de l'inspection du travail xayrun bu fekkee fayuñu ko. tribunal. tribunal nag lu yàlla xam doy parce que des fois dañ lay laaj ay preuve uh-huh. bon preuve yooyu soo amul bulletin de paie amuloo contrat de travail ah joxuñu la demande d' explication biñ lay jax joxuñu la lettre de licenciement uh-huh. bon foofu ñun dañuy dañuy dañuy dañuy wax juge bi ñu jéem a def euh, euh, euh, audience d' enquête bu fekkee audience enquête boobu am na des fois problème bu rëy la ñuy am uh-huh. parce que pour liggéeykat bi indi ay témoin ñu ko a témoin du yomb mhm. du leen mën a jox paas ñu ñëw wala ñooñu du ñu ñeema ñëw témoin au niveau du tribunal mhm. mais de toute façon bu fekkee am naa dossier ci semaine bi mhm. Euh, euh, euh, mën naa wax ne quatre-vingt-dix-neuf yi dafay réglé. leen di jàppale. d'accord tey ci xayma ndax am na affluence ci wàllum affiliation bi ndax ñoom xam nañ bu baax ne syndicat bi am na taxaw na ba mu jaral leen ñu ñëw jënd ay carte de maam su ko defee bu ëllëgee lu leen ci mën a daal mu am ñu leen taxawu. waaw xam nañ ko bu baax a baax. Uh-huh. xam nañ ko bu baax a baax ñi affilié wu bëri na. bëri nañu bëri nañu bëriwuñu. Hmm. mais problème bi mooy pour nga déplacer leen. Mm-hmm. parce que daf ci am bon yoo xam ne bu ñu wàccee dem togg mm-hmm. euh, am ci bon yoo xam ne dimanche kese la ñu am dañuy nekk ak seen jëkkër wala dañuy dem xew léegi pour nga dajale leen pour réunion ñoom yombul yombul soo wootee réunion yàlla mën mën nga am chance nga am quarante cinquante personnes mm-hmm. waa ci ñi nga xam ne vraiment mat nañu trois mille bon vraiment euh, dañuy liggéey ñu ñëw ñi nga xam ne ñëwuñu ñu yóbbante leen wala woo téléphone leneen lii am na aussi dañuy organiser ay séminaire de renforcement de capacité. ah yooyu day am. waa yooyu yëpp ñun dañ koy def. d'accord. dañ koy def peut dañ ko. médiation ci seen i fonds ci seen i fonds wala. Euh, non pas ci seen i fonds. yéen seen fonds yéen. en euh, tant que syndicat ñun suñu fonds. ak seen i bailleurs voilà ak suñuy bailleur parce que dañu affilié ci syndicat international mhm. ñooñu des fois ñoom ñooñuy ñooñuy aidé mais trois ans mu ngi nii jotuñu benn aide ndax covid bi mhm. mais mais chaque année doon nañ jot seen aide mhm. léegi aide boobu bon euh, ci lañu ñu dox pour état du Sénégal jéem a ratifier convention C589 mais boobu ba léegi antuwul Euh, tey justement euh, pour ñu génn ci phase bi euh, am ngeen ay chiffres ay pourcentage ci li nga xam ne mooy xoxatal yi ñuy daj ci biir kër yi. waaw si am am nañu am nañu pourcentage yooyu. Mhm. am nañ ko bu fekkoon préparé woon nañu yooyu yëpp doon naa la ko préparé. d'accord par exemple atu mille vingt et un juste rek xam naa du la du la réer parce que moo gën a moo mooy bu na a récent. waaw waaw bi bu bo bëri na bëri bon yoo xam ne dañ ci ay jafe-jafe. Hmm. bëri na na trop c'est que aussi euh, je ne sais pas employeurs yi dafa dem ba ñoom tamit ñu am ay jafe-jafe xaalis. Ah. am na bor yu bëri yoo xam ne dañ ci ñàkk seen emploi. Mm-hmm. Euh, man mi man mi sama bopp man euh, bon bu ñëwee ci man su ma le réglé les problèmes ba pare dama koy jéem a utal beneen liggéey. Mm-hmm. c'est que nekk naa ci milieu bi ba xam naa ci lu bëree bëri. Mm-hmm. dama leen di jéem a liggéey mais am na lu nekk ci biir loo xam ne loolu aussi dañ ko war a dindi teg ko fële. mooy agence yi. mooy hmm. agence yi hmm. da nga jàpp ne dañ leen di exploiter. wala agence yi franchement agence yi état du Sénégal def ci war a jóg. Hmm? man mi mun waaw daf ci war a jóg. parce que lan yi di def. agence yi li ñuy def da ngay ñëw euh, euh, euh, su fekkee dañ la placer liggéey. ñoom dañuy am ci salaire bi aussi seen déplacement dañ ciy am mais une fois ñu jox la liggéey rek xamatuñ sa dara. xamatuñu dara ca kañu joxe ndax rey nañ ko foofu ndax mu ngi fay lekk ndax mu ngi fay liggéey talatuñu dara ci loolu même damay am problème ak agence yi c'est que patron bi su ma la convoqué au niveau de l'inspection du travail soo demee ci agence bi ne danga ma danga ma convoqué agence bi ànd ak yow wala mu ne génnal foofu bul jox ko convocation waa kii kenn embauché wu ko kii nangam nangam kii nangam nangam. Hmm? te pourtant kooku yow balaa ngaa ubbi sa agence da nga war a xam la droit du travail. parce que liggéeykat boo xam ni dafa ñëw ci yow nga jël ko même bu fekkee defaruloo ko contrat c' est un contrat verbal. mais gisoo ne état moo seetaan. loolu la état moo seetaan waaw parce que lii mën nañoo ne euh, trafic la. Euh, trafic justement da ngay jël sa morom nit euh, jox ko nit mu di ko liggéeyal yow bu fayee ko nga jël ci tamit sawal wàll au nom de te doole moo ciy dem. wala bu fekkoon sax su paree danga koy gunge bu amee problème tribunal. nga dem mm. tribunal nga dem ci patron bi ko lu tax nga dàq ko su fa amee lu ko naqari nga dem ci patron bi régler ko mais yow une fois nga joxe ko liggéey rek xamatoo sax ndax kooku mu ngi dund te yow yaa ngi jël xaalisam. Hmm. vraiment loolu loolu ñaaw na agence yi dañ leen war a xeex ñu jógee fii wala ñu formaliser leen parce que aussi euh, nit bakkan dafa fort. dëgg la ñàkk ñàkk dafa metti mm-hmm. dafa metti nga jóg six heures matin ba huit heures ci guddi. Mm-hmm. am koo xam ne mu ngi sa ginnaaw loo am rek mu ne ko coppet loolu dafa metti metti na te doy na waar euh, vraiment ñu wax ci salaire minimum interprofessionnel garanti muy SMIC bi sànq yaa ngi koy junj convention bi lu mu ci wax ñaata lay toll. waaw convention bi cinquante sept mille et la. Euh, te boo xoolee fii Sénégal. Hmm. bon yu bëri dañuy fayeeku moyen loon dañuy fayeeku trente mille vingt cinq mille quarante mille cinquante mille ñi ciy fayeeku euh, au dessus du SMIC bëri wuñu da nga leen di compter. Hmm. kon kon franchement euh, dañu war a normaliser seen liggéey buñ ko normaliser nag. ñu normaliser aussi le temps de travail hmm. aussi les tâches tâches yi nga xam ne mooy liggéey parce que bon yi Mm-hmm. soo xoolee arrêté bi ñu amoon depuis mille neuf cent soixante-huit boobu sax dafa xawoon a distingue mm-hmm. dafa defoon euh, euh, babysitter kii téye xale bi def bonne ménagère euh, def bonne cuisinière ko ku nekk ci kër gi yow li nga xam ne moom lañ la jëlee loolu kese ngay liggéey mm-hmm. voilà loolu loolu franchement am na lu mu réglé réglé na lu bëree bari bu fekkoon signé woon nañ convention bi franchement léppay réglé wu parce que ku jóg rek jël bon ku jóg rek jël bon vraiment loolu métti na même ñun Sénégal dañu war a xoolaat suñu bopp da ngay gis ku ñëw ci yow ne la dama bëgg liggéey nga jël ko jël ko pour lan euh, pour troit quatre jours mu defar sa kër ba mu baax après nga dàq ko. nga ne ko bàyyi. nga ne ko bàyyi ñun Sénégal yi ñun ñooy def suñu mbokk Sénégal yi loolu. loolu vraiment loolu fuñ ko teg. Mm-hmm. fuñ ko teg franchement kooku képp koo xam ne yaa ngi koy def waruloo jàpp di julli sax. loolu ñaaw na ñaaw na en tant que responsable syndical tey nan nga jàngatee le fait que suñu état di signer ay convention di bokk ci ay convention ba pare du respecter yenn yi ci ak ak yelleef ci mim réew waaw loolu loolu kenn mënu kenn mënul xam lan la c'est que suñu état moo fi dàqa ratifier convention mais convention bi mu ngi nii ci loxoom ah dem nañu présidence dem nañu primature dem nañu chef religieux yi ah, dem nañu ci jàngu bi ah fu nekk dem nañu kilifa bu ñu dégg rek dem nañu ci moom pour mu yuuxul ñu ñu ratifier convention bi euh, am na jamono boo xam ne euh, Mimi Touré moo fi nekkoon premier ministre. Mm-hmm. moom promettre nañu ne dinañu ratifier convention bi ñoom Khalifa Diakhaté. Mm-hmm. ñoom ñoo nekkoon assemblée national mm-hmm. mais boobu ba léegi kenn yooyu ci bi te lu nekk def nañu déposé nañu lépp loo xam ne war nañ ko déposé pour ñu ratifier convention bi mais problème bi mooy même da ngay dem ci kilifa mu ne la càndoom bu leen sonal seen bopp convention bi kenn du ko ratifié. au nom de quoi ndax voilà ndax lan parce que dañuy jàpp ne euh, salaire yi nga xam ne bon yi ñu ngi koy laaj kenn du leen ko fay te mu nekk liggéey liggéey boo xam ne moo gën a métti ci Sénégal. parce que da ngay nekk liggéey kat nekk gardien a ah, patron bi buy dem liggéey daf lay bàyyi këram bàyyi la ak ay doomam ngay yar ay doomam ah di ko toggal di ko léegi moom nanguwul a te bu nekkul woon moom doo nekk tranquille ci ngay liggéey ah ku jóg rek jël bon vraiment eh, Samba booy mooy jóge fële rek jël bon ah du nangoo fay li nga xam ne mooy CIMIC bi loolu moo tax bëgguñu ratifier convention bi mais bu fekkee étranger yi fi nekk rek la boo laajee cent pour cent yi dañ lay wax nañ ko ratifier parce que ñu bëri dañu naan xamuma woon su ma xamoon ne lii la man ma nekk en nekk en règle moo ma gënal mais doo dégg sénégalais wax ko. ah lu ñu def foofu pour lan loolu franchement nañu bàyyi nañu bàyyi jànq yi ñuy maltraité jànq yi nit la ñu comme nit ñëpp dañu néew doole rek dañoo néew doole am na si ñoo xam ne jàng nañu ba am seen diplôme. Mm-hmm. amuñu liggéey mais ñu ñu retourné du ñu dem jaay seen bopp. mais finalement dañ leen di def jaay bopp. ah parce que bon am na ci ño xam ne franchement xaalis seytaani la. Mm-hmm. même bu fekkee yow ba ngay jóge sa kër nit njaay nga nit bu normal nga xaalis mën na la def loolu loo xam ne du yow franchement léegi xaalis boobu nga koy may pour sàkku ko te nga ko koo fay moom mu normal. dëggantaan. waaw franchement foog ñu xoolaat teg lépp ci kaw taabal bi sinon li chaque année lay doon euh, presse bi wax ci tuuti jeex na balaa ngaa jega presse bi wax ci deux ans trois ans quatre ans chaque jour les même choses la ñuy wax. nañu jóg ñu régler problème bi parce que nit ñi ñu ngi ciy ñàkk seen parce que des fois souffrance dina rey nit mhm. dina rey nit souffrance dina rey nit. Mhm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Aliou Thiandoum euh, yow ngay euh, secrétaire général syndicat des travailleurs et gens de maison. d' accord merci beaucoup kontaan naa trop ci occasion bi ngeen ma jox. Mhm. pour ma expliquer lu mu néew néew Sénégal yi dégg ne problème bii problème bu ñu war a taxaw la ñu ngi tàllal président. loxo pour mu defar ñu centre bañ ko waxoon centre boobu dañ koy def euh, pour euh, recevoir jànq yi jóge ci village yi des fois nga gis jànq buy jàng toppandoo ay ay moromam bàyyi jàngam ñoo ñu jéem leen former orienter leen ñu ñu mënal seen bopp merci beaucoup.